الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام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 يا حمة الشيخ فحد لنا بعسى المحضر والتفنا بنصرة تحت لنا بالصفر نبقي قنا بن سنت يا الله جل شيء لن تبي نيو تي درس بنيجي جانغ تي تيري بنا خمنا موي متحر القلوب ومتلع الغيوب بنا خمنا ما على جبل ناس ما وقدفون فرمنا دمبلة تاريبي تي ندفعه يارو dafa am sa am teggin am jikko yu baax ñu jàngoon démb faslu bi nga xam ne moo doon ŋàññ laxu te mooy mbóosóor ak i caaxaan ay yu ñàkk bopp nga xam ne mooy wax ju ñaaw joo xam ne day nekk si diggante mbokk te ñu def ko kaf ba xaxar yi jigéen ñi def sax bokk na ci ci laxu li ñuy wax mooy sooy wax na nga wax lu baax wala nga ne xuulu li naa si xusnan wax du illaa tayib bi xaw xawli loolu laa ko wax nag bu ngeen di wax da leen wax wax ju tey ju rafet yonent bi nekk li mu tudd bon nit ki bu buggee nekk koo xam ne kàddoom dafay nekk lu rafet lu baax luñ sant dafay moytu mbuusóor tey mu ñëwoon ñu ci faslu bi nga xam ne mooy ŋàññi eh, ree ci xàqtaay di ree bay xàqtaay xàqtaay bay yuuxu loolu eh, dañ ko ŋàññ ci jullit bi mu ci leeral ne am na juróom ñetti gaaf gàkk yoo xam ne xàqtaay daf koy def léegi nag bayti yi am na si ñetti bayti yoo xam ne dama yaakaar ne dafa dafa manqué ci fii ci ci ci ci bi ndax indiwu ko ci ndax juróom-ñett la wax te bi waxee awal saani sa saalis bi rek la dal bon jëli na saalis ak raabi ak xaamis bon bu ñu firee ba pare danañu jël nga xam ne saraa bi indi na juróom-ñett yëpp mu wax na mu ne wat xak tabassuman wala tuqahqiha li annaha tusamu tusammu yaa muqahqiha mun a wadhak na nga ree tabassuman ci muuñ yow booy ree na nga muuñ ndax yonent bi muuñ rek la daan def wala tuqahqiha bul xaqataay li annaha tusamu ndax dañ koy ŋàññ yaa muqahqiha yow miy xaqataay booy ree na nga ree muuñ waaye bul xaqataay ndax xaqataay dañ koo ŋàññ samaanu afatin biha bi in kunta raimal ola gàkk biha ci xàqtaay am na ci bon nag fajtani bi nanga ko teej in kunta ndam nekk nga raimal ola ji kowe wal qurbi ak jege sa su fekkee dangaa bëgg maqaama bu kowe ak jege sa borom na nga moytandiku di reey bi xàqtaay ndaxam xam ne juróom-ñetti gàkk yoo xam ne moo ci nekk awaluha sammuka kullul milxi wa hakasa zawul xija sunxi awaluha bi ci njëkk ci gàkk yi xaqtaay ko mooy ŋàññ sa kullul milxi bépp boroom xam-xam bépp boroom xam-xam daf lay ŋàññ daf lay wax daf lay doyadal daf lay ŋàññ naka noonu si bépp boroom xel ak bépp boroom xelaat bu rafet daf lay ŋàññ maanaam du rafetlu sa jëf bon koo xam ne booy ree di xaaxataay nga mel ni di ba mel ni yof xamal ne boroom xam-xam yi yow ja considéré leen dañ lay ŋàññ ku xam xel tamit du du du la du ku xel mu rafet tamit du la xel xalaat bu rafet tamit du la bo du la du la considéré wasaani juratul jamiul juhala alayka yaa mu xaxan ka man jala wasaani mu ne ñaareel bi jur jamiul juhala ñemeet mbooleem ñu ñëpp mooy ñi nga xam ne dañoo manqué ñi amul xam-xam dañ lay ñeme alayka ci yow yaa mu xaxan yow kii ka man jalaa comme ni mu xuññee ko maanaam feeñee koo xam ne foo toog di ngax ngaxi jaahil yëpp dañ lay dañ lay ñeme dañ lay ñeme ñeme laa wax dara ñeme laa euh, dugg say mbir duñ la respecté duñ la ragal bon ku ku ku bëgg ñu rek la ragal la surtout ñi nga xam ne amuñu xam-xam mooy del moytu di ree di xàqtaay foofu mu jàll si saadis waa bon bàyyi na saalis raabi xaamis bon fi mon moy wane ne nas bi am na lu ci réer du tolloog ñetti beyt mu ne saadi a juroom benel be nisiyaanu ko moy sak fàtte almawtu dee wama baadal mamaati ak la nekk ci gannaaw de iqtadiyan royal bil ulama ci borom xam-xam yi te mooy nga bañ jiiree di xàqtaay juróom-benneelu gàkk bi nga xam ne moom la xàqtaay di def ci nit dafay lay fàtteeloo dee ak la nekk ci gannaaw de mooy bàmmeel ak xisaab ak yooyu yëpp sa xel du ko daj ndax lu koy waral te nag bu ñëwee sara dafay waral wow xol te ku wow xol sa sa sa xol bu dul dafay fàtte dafay fàtte dee mu ne saabi oxaa juróom-ñaareel bi xam lu ko wisra man dhahik haqqan bi dhahkika fakun nusuk mu ne saabion juróom-ñaanal bi hamluka moy sa xenu ngay xenu wisra man dhahika bàkkaarab ka nga xamna reena haqqan ci deug bi doxkika sa re sa re gi bo re ku re si sa re gi rek da ngay ba nit ñi ci ngir sa re gi ci da ngay kon nak fu kon na nga nek ak xaanu su ci di borom ak jaamu man dina nek kuy jaamu yalla te kuy jaamu jaamu katam yalla du re tamamu ha matalam gi te moy juróom ñettal bi buka ko sa al alkasiru lu beuri yowmal xiyaamati bés penc aya basir yow aji gis ak am bis gis gisab xol yow mi nga xamne da ngay gis juróom bu mujj bi moy da ngay joy lu beuri yowmal qiyamati bon lol moy nas bi juroom ñettelu afani so ñewé ci si fi tanbiihul xaafili li seeku sam khandi sëriñ bi ñu wax khandi def ko def ci téré mu suñu tan tanbiihul xaafili na mooy xeeñ way sagan ñi rahimahullah yàlla na ko yàlla yar mu ne iyaaka wa daxikal xaxqaati mooy tundikul reexi xaqtaay fa inna fii samaaniyatu aafaatin nekk na juróom-ñetti أولها بسنجة أن يسمك موي مغاني العلماء برام خام خامي أو العقلاء أكبرام خالي نعم خالي يب دنيا نيانغ نعم أكيد أي دار أكيد أفن نعم ياك بوب وساني نعر البي أن يجري يتري أموي نيما عليك يا أصفاها ونيدسي نيوال نعم جهلا أك نيرير نيدسي أك نيرير نيب دن لأي نيما معنا دن نيما دوغي سيسي مبير سوا وخي نيو دوغي سي لو وخي نيو أتاكل دي وخي نيو دن لامال بين رسبي وسالس نتل بأنك لو كنت جاهلا إسداد جهلك نتل بسكون نغارير دفع يوك سرير بي وإن كنت عالما نقص علمك سبا كان دغا نكون برام خم خم ديواني سخم خم بون ريري خاقتاي سودي نغارير دي يوك سرير سودي برام خم خم مباني سخم خم لأنه لأنه روية في القبر عندنا نسيب خبار موي واخد جو خمنا دنكو تخل إن إن العالم إذا ضحك ضحكة مع مج من العلم مجة يعني رمى من العلم بعضه xabar dañuy wax ne boroom xam-xam bu ree ak ree mooy ree gu kowe xaqtaay dafay yëb dafay yëb li ci xam-xam ab yëb li da mooy def ci sànni ab xaaj man ne ni koo xam ne dangaa fekkoon ne xam-xam danga koo guuxoon puusu nga ci ab xaaj te mooy wàññiku bon ñettal bi mooy daf lay yokk réer di wañi xam xam-xam wa rabi' ñettal bi inna fii nisyaanu zunubi madiyati ñettal bi moy daf lay fatelo bakari passé won woon kuy ree di xaxataay xaxataay googu daf lay fàttali say bàkkaar yi wéy te nit ki bu faté ay bàkkaaram du ko tuub te bu ko tuubut man na ko yóbbee mbugal ëlëk من أول خامس جروم أن في جرأة على السنوب في المستقبل كل هذه خاختاي دا كوي جروم اللي ما يجاك بس نك دا كوي نيمة لو بكار تلي نيو دا في فاتي بكار مي فيها سبب فرد دا كوي نيمة لو ده بكار تلي نيو لأنك إذا ضحكت يق يقصو قلبك دا بوري دي خاختاي رك سقول بلا فيو تسقول بوه دا كوي نيمة بكار دا كوي نيمة ده بكار mu ñëw nag si saalis bi mooy mu ne wa saalis bi inna fii nisyaanul moo wa maa fii min al axirati juróom benn bi mooy fàtte dee ak li nga xam ne moo ca nekk ci àllaaxira mooy bàmmeel ak xisaab ak jéggi siraat ak joxe téere ak yooyu yëpp sa xel dootu si daj doo ko dootu ko daj te loolu boo ko fàttee eh, doo ko préparé bu sa xel nekkee ci loolu nag foog nga waajal ko sa xel bu nekkee ci bàmmeel foog nga waajal ko ci jëf yu baax waaw àllaaxira bu si sa xol nekkee foog nga waajal ko fexe ba bokk ñi ñu joxe seen téere yi ndeyjoor fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñu jéggi salaat si gaaw fexe ba nga xam ne ñu seen i jëf yu baax danañ diis bu ñu leen di peesal waaw yooyu yëpp bu sa xol nekkee waaye kuy reeri xaqtaay loolu yëpp da koy da koy fàtte juróom-ñaareel bi comme ni ñu ko waxoon ci nas wi daf lay war bàkkaatab képp ku reese rek boo reetaanalee nit ñi waree bañ ree seen bàkkaar yëpp dañ nga siy bon ñi nga xam ne dañuy def loolu nga xam ne dañuy def spectacle di di di def ay reetaan ñu ñuy ree ñëf a nekk ñëpp seen bàkkaar yi da nga ci yanu bon lool du métti mu bu am bu la joxee bu la joxee xaalis tamit dana la jox bàkkaar loo xam ne loo ca am da nga da nga ko rëccu juróom-ñetteel bi dafay war ci nga xam ne dafay ree di xàqtaay muy jooy lu bëri àllaaxira ndax yàlla moo wax ne fal yadhaku qalilan wa liyabku kasiran jazaa'an bimaa kaanu yaksibuun waa àllaaxira ñi nga xam ne ñoo nekkoon sàggan fii di caaxaan ak xàqtaay dañ leen wax ne nañ reelu tuuti tey jooy lu bari ngir ñu fayee leen ko la nga xam ne moom lañ doon fàggu ci àddina di sàgg sàggane seeni uh, waxtu di di xàqtaay ak di def li nga xam ne amul benn njëriñ maanaam maanaam loolu mooy àddina bi lañ fay nekkoon du néew lañ fi nekkoon ndax àddina yàggut bon boo fi leer dañ fi leer du yàgg reer lu la neex waaye bés boo demee àllaaxira nga xam ne boo xam ne moom boo fa xasee dem dootu jeex amut fu mu xem jooy fexe fay reer moo gën nga fay jooy te ku bëri looy reer ci àddina dangay ngay bëri jooy àllaaxira bon loolu mooy fas bi ñuy jàng tey di reer di xàqtaay moo tax jullit bu nekk war na koo moytu rawatina ki nga xam ne yaa ngi sulu jëm ci yàlla ndax xaaxataay moom du jëfi nit ku xiw jëfi ku dese kon nañ koy moytu bu baax ndax lii bu ko maawalee bindee mooy lan pour bugg nit ñi mën a am jikko yu baax yi nga xam ne day yóbbu nit ki ci yàlla ndax kiy yar dafa lay defal taxalli mooy day dindi ci yow jikko yu bon yëpp ba mu set su ko defee mu defal la taxalli mooy takkal la jikko yu baax yi moo tax boo demee ci nit yàlla yëpp boo fi ñëwee dañ lay dindil mboolem jikko yi nekk sa sa yow caaxaan ree fo bon rëy jikko yu bon xaj yi xaj yi jikko yu maanaa yëpp dañ koy raxas ba mu set ñu ko defee nag ñu ràngal la jikko yu baax yi su ko defee nga nekk ci gaañu yàlla yi nga xam ne dañuy jege yàlla fekk si maqama yu kaw yi yàlla ñu dimbale dañu dégg ak topp lu si jub yàlla nañu ko yàlla nangu lu si dëng yàlla nañu ko yàlla jéggal te xamal ñu ko yàlla ñu yàlla fayal maam Alaaji Abdoulaye Niass yokk yàlla boole ñu ci suriyatu tayyiba bi mu ñaanoon yàlla def na ko si si si tiin ak ci ruux yëpp daraja yonentu sala yàlla yàlla fayal fayal ko mboolem ay ay njabootam yàlla def ñu bokk ci wari saan xaqan allahuma salli ala sayyidina